bismillah inna waliyallah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi seetaan ci seen télévision Touba Monde bi TV di ñu déglu itam ci seen rajo xasida online Touba Monde bi ñu leen di nuyu di leen siyaare ci bis bi nga xam ne moo di fukki fan ci weeru Tabaski tey jii ñu nekk ci kër Serigne tubaa gi nga xam ne moo nekk ci Touba Milano via Carnevale numéro 26 ngir waajal julli bi nga xam ne moom lañ war a julli ci njiital sëriñ Moussa Diène ak sëriñ Moustapha Mbacke waaye itam ci njiital sëriñ Ismaïla Mbacke ñu ko ko xam rek mën nañ ne kër sëriñ Touba gi mbooloo mi fees na ko dell ba ñenn itam ñu ngi ci waajal julli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 والذي أعرج المرعى فجهله قزاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفيه ونيذرك ليذرى فذكر النفع للذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحييه qad aflaxa man tazakka wa zakara isma rabbihi fa sallee bal tuusiruuna alxayaata addunya walaaxiratu xayrun wa abqaa inna haadaa la fi suxufi luulee suxufi Ibraahiima wa Muusaa. Allaahu akbar. Allaahu akbar.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 الضالين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهير إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما تهاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أسقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها الله أكبر الله أكبر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 asalaamualeykum bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين أما بعد فهذا اليوم يوم العيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد واشكروا الله تبارك وتعالى في على كونه ذرورا للنبي ولمن يختفيه صلى وسلم عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه وأوذيكم فيه وبعضه بملاسمة معطير لكم من الأغلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد وأعذركم فيه وبعده أنفع لما لم يختر لكم من العبادات والعادات فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم والجامع للسعادات وطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملاسما مغطير له من منير لبه وويل لمن قاده إبليس إلا ما شاء فإنه يلازم ما أقصى وأذاه qaala allahu tabaaraka wa taala wa maa aataakum rasulu fa xusuuh wa qaala allahu tabaaraka wa taala fa man yacmal mitqaala darratin xayran yarah fa tuuba liman axaza maa ataa bihi rasul ali bi aalihi wa sahbihi salaama mucti zuul wa lilladi himmatahu tartaqi ila alxayri laa ila alkadri waddayri وويل لمن لم يأخذ ما أتى به المنطقى عليه بآله وصحبه زلاما من جاد بانتقاه وأوزيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني سوي الحسد والعدوان بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا فإنه مفارقته تضر إليكم ألما وكبدا وأنهاكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم كونه الصوابا fa innahu mima yuwajjihu ila gayrikum al ajra wa rida wa sawaaba wala tatlubu alkarama bi gayri taqwa fa inna alkarama huwa taqwa wala tatlubu al izzata min gayri al azizi al muiz bi jaahi abdihi nabiyihi rasulihi al aaz fa inna man adbara an illahi tabaraka wa taala illa siwa tarakahu maa nafsihi wa hawaa ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوزير قاد إليه كل ما كان يتقي إليه من الجميلة يا أيها الناس اعبدوا ربكم اتق الله حيث كنت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليزمت قد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبارك أن من تاب من أمته qabla mawtihi fa innahu yasfau fi inda mumiiti mayti wa anna man lam yatub minhum tawbatan nazuha faqad amarahu man waazahu nasiha rabbana la tusi qulubana bada id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahhab rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم allahu akbar kabira walhamdulilah kasira wa subhanallahi bukratan wa azira alhamdulilah alladi jacala yowma alcaydi yowma altawsiati waltafrihi walitlaax walsalaatu walsalaamu ala man axrajana min zulmati aljahli walshirki walnifaaq walimlaaqi sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi sawi lwifaaq وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فاحمدوا الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتهى عليه سلامه بجميع مختفيه فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وإرق بفضل من جاد بفتق الرتق فمن شكر الله تبارك وتعالى fa man shakara allaha tabaraka wa taala fiihi fa innahu yanzur bi kulli man bi kulli ma min alxayri yastafiih fadlubu fiihi min allahi tabaraka wa taala xayru fa innahu tabaraka wa taala yadribu ila xayrikum dayra wa tuubu fiihi ila allahi tabaraka wa taala min jumlati alisyaan fa innahu yaxfiru lakum wa yakuffu ila xayrikum zawi tuxyaan wa tawajjahu ila rabbikum bilkitaabi wassunnati walijmaa fa inna allaha tabaraka wa taala yakfikum man abaw fihi al ijtimaa bi jaahisi al qazawati al murdiya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi zawi al ardiya alhamdulillahi alladi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun ala almursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin leen di nuyu bu baax a baax te di leen siyaare ci bis bu tedd bi te di leen baalu xaq te di leen baal aq ñu tànn ci ay kàddu yu néew rek ndax yitte yu bari yi waaye liñ ci jublu rekk mooy fàttalente ak soññente ci suñ biir xam ne digal moom suñ diggante yéen xëy na warunu ndax dañoo am kilifa goo xam ne mooy suñ kilifa nu ñëpp muy Seex Sidil Maxtaar yàlla na suñ borom dolli ko fee yàggal te yokk ak wéram te dimbali ko ba naal ak yéen yi nga xam ne am na ko fas ko yéene liggéeyal maamam ju tedd ji liggéeyal ko lislaam suñ borom may ko kattan ba man koo àggale fu mu ko bëgg a yóbbu te ànd ko mbooleem bokk yeeg taalu bi mu mel ne nag suñuy kàddu du gudd lool fi ñu koy jëmale rek mooy xam ne bis bii na la soo xam ne yàlla dafa ko dogaloon jaarale ko suñu maam Ibrahima muy def ko digaloon mu rendi doomam muy am ñuy wax Ismaayila am ñuy wax Isaaqa waaye lu mu ci mën a doon daal ndigal la loo xam ne ndigalul suñu borom la woon mu digaloon ko suñu Ibra suñu maam Ibrahima yàlla dogal moom itam mu doon ku dégg ndigal rawatina ndigalul sunu borom mu fasoon yéene jigéen jëfe ndigal loole ni ko alquran nettalee ba mu ko digalee doom ji doom ji moom itam doon ku ku ku ku mën ndigal yi wéy juróom xamal ko ne ko insha allahu day dana ànd ak muñ waaye defal li la sunu borom sant waaye yàlla dogal sunu borom it doon ca xool sunu Ibrahima nu muy doxe ba mu fas yéene loolee ca la ko wóotalal yox jibril na ko na nga di jël am xar ci àjjana yët ko ko mu wottee ko ismaila kon nag loola tey nun ci nun suñ bopp war nañ cee sant yàlla bu baax ndax loola bu amoon tey ku amati doom da nga koy rendi yàlla di dox nag di def loola di ñëw jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa di wàcc ba agsi ci nun kon nag ku suñ borom baaxe nga fas yéene joxe loola nanga nga sant yàlla bu baax euh, leneen liñ ciy dolli it mooy nan dollee góorlu te wormaal barab bii mm-hmm. worma juñ ko jox rek doyut ndax yaakaar naa ne fi nga xam ne li muy yaatu yaatu ci Milan foofu moom rek lañ fiy tudd di tudd Sëñ Tuubaa mm-hmm. yaakaar naa ne ku fay dem war ngaa xalaat ne kër Sëñ Tuubaa nga jëm te yaakaar naa ne ku jëm ci ku jëm ci sëriñ bi mu leer na ne sëñ ba nga jëm waroon ngaa war ngaa yor jikko ak callaay gu rafet goo xam ne boo xam boo demee kenn du am ci yow lu muy xebat mm-hmm. beneen bi ci dolli ko waatit mooy ñi nga xam ne dañuy njabootuk sëriñ bi di fi ñëw lépp luñ leen warmaal doyut ndax nun kat luñ am ginnaaw yàlla sëriñ bi rek képp koo xam ne ne la nga am moom moom donga te yaakaaroo ci sa bopp dara tey ak ëllëg lu dul jëmmam war ngaa mën a warmaalu njabootam bu baax a baax noo ngi nuyu sëñ Ismaayla di ko siyaar bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam di bëgg ci di bëgg ci moom lool ndax it barab bi tey ginnaaw yàlla bu amee ci ndigalul wuy juróom wala amee kon nag bu nu yàlla baaxee tey doomi Cheikh Mouhamadou Mourtada ñëw taw ci mbooloo mi maa ngi koy nuyoo léegi ñëpp kenn ku ci nekk ak eh, maanaam cër boo ko mën a dox ña ngi ko ko jox ngir yàlla ak jëm Serigne Touba xam ne koo xam ne bu ko fi yàlla bàyyee mu gudd fan mën naa dem tey ba doon xalifa sénéral di murit mm-hmm. loolu kon ku ko gis ku ne war cër boo doon jox si suñ Sidi Moxtaar boo ko munta jox bu toll noonu yow nga ko mën a jox bu ko jege mm-hmm. te yëmalewoo ko ci moom dong ndax njabootu Sëriñ Tubaa gaa ngi fi mm-hmm. ay sëti sëñ Moor Jaaraa ngi fi sëti Seex Isaa ngi fi te ñoom itam lépp lu ñu am sëñ Tubaa leen ko jox te eh, kenn ku ci nekk ca mag ñi nga xam ne ñoo moo àndoon ak Sëriñ Tubaa kenn ku nekk sëriñ cër ba sëñ Tubaa joxoon sa moroom yéene woon nga ko lool kon nag nun tamit nanuy doxee noonee kenn ku ci nekk la ko yàlla defal nga nangul ko ko te te te loo mën ci worma nga jox ko ko te xam ne boo ko wormaalee sa bopp rek nga wormaal te dañuy wax ne boo ne woon bu ma gisee sama baay defal ko la ma ko lépp lu war ci moom sa baay dundut nga gis sa taawu baay te defaloo ko ko loolee ngay wax du dëgg ci yow ku ne woon ne bu ma gisee Serigne Touba sama taalu bi lu ma ci amoon danaa ko yokk nga gis ku bokk ci moom te xay na noonee doxewoo ko yaakaar naa am na lu wàññeeku. kon nag noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di balu àq ñëpp di ñaan suñu borom mu defal fekkee ko déwén yu baree bari te képp ñu kenn ku ci nekk ci noonu amagu yokkute te kenn bañ a wàññi ko te lépp li nu tax a jóg mooy yi nga xam ne tax na leen a jóg suñu borom jàppale ko te kenn ku ci nekk lan ci am mu néew ko bari suñu borom may la kattan ak wér boo ko mën a jëfandikoo kon nag noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wa kullu aamin wa antum bi xayrin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen ñi seetaan sunu télévision Touba Monde bi TV di déglu sunu rajo xasida online Touba Monde bi nekk fii ci Touba Italie tey di fukki fan ci weeru Tabaski ñi ngi fii ci kër Serigne Touba gi nga xam ne moo nekk ci Touba Milano di julli fi li nga xam ne moo di julleeg tabaski ginnaaw bi nu jullee ba noppitam ci njiital sëriñ Moustapha Mbacke ak sëriñ Ismaïla Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Mourtada ñi ngi fii ci kanam sëriñ mam Thierno Silla bokk ci njaboot ak sëriñ maam Thierno Mbacke nekk ca Daarul Moxti nekk fii itam ci Touba Milano kenn ku ne xam ab taxawaayam ci yoon wi. kenn ku ne xam ab yëngutoom rawante na fee mu nekk ci tubaa Calepio ànd ak sëriñ Nooru ak sëriñ Sini ñoom ñëpp itam ñu bokk ci liggéey bi ñu bëgg ko taataan sunu kàddu ci télé bi nga xam ne moo di Touba Monde bi TV ànd ak rajo bi nga xam ne moo di xasida online Touba Monde bi nekk fi ci Touba Italie ngir mu yëkkati kàddu yoo xam ne doo koy jëmee ci taalibe yi ci liggéey bi nga xam ne moo nekk ci sun kanam rawantane bis yu mel nii nga xam ne moo di bisu tabaski wala korite taxawaay bi ci taalibe yi war a am ci fulal ko ak fonk ko rawantane barab bi nga xam ne moo di barabu kër sëriñ Tuubaa kon sëriñ bi bisimilah. aousu billahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim barkab sëñ Bamba. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. yéen mbokki jullit yi yéen mbokki taalibe yi. ñi ngi leen di nuyu te di leen siyaare te di leen baal àq te di leen baalu àq tey ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla na nu yàlla boole jéggal sunuy bakkaar te nangul nu sunu jàmm yàlla te defal nu lépp addi sëriñ Touba. Cheikh Ibrahima xam naa ne kàddu yi du mën a gudd ndax li ñu war a wax ak li ñu fi war a leeral lépp njaay mate nga ko leeral nga ko waaye sëg laabir ak sëg yéene. ci jottali liggéey bi ak yaatal ko loolu rek moo tax nga jox ñu kàddu kàddu yi daanukat nag ak kàddu yi boroom xam-xam danoo bokkul ndax nun danoo baaxoowul wax ci mbooloo waaye lépp rek ñu def ko ak cant fii nga xamante ni bii mooy tuuba Milano di kër Serigne Touba fii ci Milan yàlla baaxe na ko ci kàttanuk Seexul Xadiim ci seex ndigalul seex Mouhamadul Mourtala yal na yàlla yokk ay leeram li ci gën a nekk taw feex itam bu ñu fi amee jàmm damay wax ne képp ku nekk fii ci réew mi ak bitim réew di fay yëkkati lu mel nii wala nga fay yëkkati ak cant wala nga fay am foo fay jàngale alxuraan war ngaa sant seex Mourtala Mbacke ndax bu nooyee ba nit am jàmm fii ci àll bi dey moom moo ko nooyal kon nag yàlla na ko yàlla fayal. li gën a nekkati taw feex itam mooy barab bii nga xamante ni bii ci ndigalam lanu ko lanu ko fagoo te itam moo njëkk a ak xéewalam daal di cay joxe ba sama borom dogal mu antu tey ji yàlla baaxe nu nu nekk ci liggéey boobu di ci góor góorlu ba yàlla baaxee baaxenu doomam di seex Ismaïla Mbacke ku ne xam ni mu mel ci jaamu yàlla ku ne xam ni mu mel ci bëgg Serigne Touba ku ne xam ni mu mel ci fonk doomu aadama yàlla baaxenu mu ñëw fii ànd ak ñun ci julli gi ñu jullee fii julli it gi kon loolu ak cantaat yàlla la goo xamante ni bii seede la woon ci lii sëñ Mourtala bëggoon kon yàlla na yàlla yokk ay leeram kon Cheikh Ibrahima dama foog ne soññee bi mooy xanaa ñu gën a góorlu te mel ne tàmbaleeguñ ndaxam kër gi ñi ngi ci di ci góorlu am na waxtaan yu ñu ci defoon wax ne fii ñu toll mat na ak ay yeesal yi ci waraat loolu laa yaakaar ne jamono yi ñu toll ci lañ war a takkaat suñu digg laxaso laxasuwaat te jéem a jëmmalaat kër gi ndax mbir kër day niru boromam kër Sëriñ Tuubaa dafa war a am nu mu mel boo demee ci jàkkay yeneen yi nga xamante ni bii du ñuy jàkkay murit du ñuy jàkkay yeneen am na nu leen jëmale te lépp luy taaru ak lépp luy jëmal lu jëm ci lislaam Serigne Touba Xaadimu Rasuul damaa jàpp ne moom moo ko yeyoo kon loola nu nii la war soññee bi daal fi ma koy jëmale mooy nan takkaat sunu ndigg nan laxasuwaat te santaat yàlla te xam ne sëriñ bi moom mi ngi ànd ak noonu ndax lii rek seere la ci ndax njabootuk Serigne Touba gépp a ngi fi teew njabootuk maam Issa Dieng seex yi nga xamante ni bi ñoo àndoon ak Serigne Touba ñoom ñëpp teew nañ fii ci barab bi loolu sant yàlla la ak itam na ñaan gu nangu la kon yaakaar naa lépp loo xamante ni bi waaye andi na ko fii ci ajo tey jii kon faju na kon nag Cheikh Ibrahima ñi ngi lay delloo kàddu gi tey jéggalu te xam ne lu ci dëng rek ci ñun la waaye suñu yéene ak suñu bëgg-bëgg ak suñu soññee mooy lépp rek ñu taxaw ci liggéeyub sëriñ Touba bi nañu kennal sëriñ bi lépp mooma ku fi am dara mooma ku bëgg dara itam mooma nan xool foofa xup xip suñ bët te xam ne foofa rek la mbir ya kon noo ngi sant yàlla tey gërëm ñëpp tey jéggalu ci kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko nag ci kanam suñuy kilifa ndax baaxoo wunu ko di ko defee waaye nag lépp ñu ngi ko teg ci ndigal rek wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bismillah inne waliyillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk jullit yi mbokki taalibe yi yéen ñi ni seetaan ci seen télévision Touba Monde bi TV di nu diglu itam ci seen rajo xasidu online Touba Monde bi nekk fi ci Touba Italie ci studio Serigne Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Cheikh Mouhamadul Bachir. ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare fi nga xam ne moo di kër Serigne Touba ci Touba Milano tey di fukki fan ci weeru tabaski ñu daje ngir julli fi tabaski ginnaaw bi nu jullee ba noppi itam ci njiital Serigne Moustapha Mbacké. ñu ngi fi toog ak Serigne Ismaïl Mbakke moom Cheikh Mouhamadul Moutada mu doon koo xam ne kenn ku nekk ci nun aw trom ak ay jëfam rekk doy na ab soññee ci nun rawante na nag boo jàkkaarloog moom rek ci aw toogiinam ak ci meloom dina la jàngalaat lu bare ci sa taalibe loolu nag ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ngir ñun suñuy wax ak suñuy jëf ak suñ lépp ci ñoom rekk lañ koy royee ngir bañ a guddal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 yéen mbokki taalibe yi ngi leen di nuyu da leen balu àq ci bis bu tedd bi tey mm, dénkaane tuuti rek mm, di ko tàmbale ci suñu bopp mooy li nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëwoon ca di ko dénkaane yonent bi salaatu wasalaam bi ñuy bëgg a dem dane alaykum bi sunnati wa sunnati xulafa arrachidina almahdiyin xabbu alayha bi nawajis wa iyakum wa muhadisati al umur yonent bi nee na woon bu demee ba ca kanam na ngeen wartandiku ndax yu bari danañ ko indi waaye bu boobaa na ngeen mooy ci sama sunna ak sunna ak xulafa arrachidin ca loolu eh, tim lu xaw a nuru noonu tim lanu sëriñ bi dénkoon sëriñ Tuuba bi mu fi jóge nee na woon bàyyee naa leen mm, jaamu yàlla ak liggéey lu ngeen am doyloo ko loolu nag eh, jamono lum jaxasoo jaxasoo ku ci nekk rek sunu borom mm, mën na laa dimbali kon nag noo koy dénk sunu bopp di leen ko dénk ku ku baaxatim bind wax nu melow àdduna nee na i'fas li siibika min aybin yu dannisuhu innal bayaada xalilul xamdi li danasi nee na na nga moytul sa bijaaw bi loolu nag waxin la euh, lépp lu koy tilimal ndaxte lu weex dafa gaaw a tilim lool kaamilin li siyaabi nnaasi yaxsiluha wa tawbuhu qaarixun fi rëjsi wa najasi nga xam ne day euh, wër di raxas mbubbi jàmbur yi rek te moom du raxas mbubboom looloo kenn xamu ko euh, kooko waxaam ne tabax tabxin najaata walam tasluk tariqaha inna safinata la tajri ala yabasi euh, maanaam na nga mucc ca jaar ci yoon wi tax nga war mucc ndax kat gaal du daw mukk ci suuf yowma alxiyaamati laa maalun wala waladun wa dammatul xabri tunsi laylatal arasi maanaam fa dëkkat amul lenn lu fay jëriñ lu dul jaamu yàlla rek comme ni ko yonente bi alayhi salaatu bëgge woon sëriñ bi diggale nu ko kon nag ñoo ngi yemale foofu wax ji te sant yàlla ci di ko dig suñu bopp di leen ko dénk wasalaamaaleykum. jërëjëf. inna waliyallah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe ji yéen ñi ni seetaan ci seen télévision Touba Monde bi TV di ni déglu ci seen rajo xasid online Touba Monde bi nekk fii ci Touba Italie ci studio Serigne Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Cheikh Mouhamadul Bachir ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare ci kër Serigne Touba gi nga xam ne moom la nekk mu di. fukki fan ci weeru tabaski ginnaaw bi nu jullee tabaski ba noppi ci njiital sëriñ Ismaila Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Mourtada ak sëriñ mustafa Mbàkke ñu ngi toog ak sëriñ Mamor Mbàkke ngir sàkku ci moom mu yëkkati kàddu yoo xam ne kàddooy fàttali lay doon waaye itam kàddooy njàngale lay doon ci ñi xamutoon lépp rek jëm ci li nga xam ne mooy sunug taalibe di sunu diine kenn ku nekk ci noonu taxawaay bi mu ci war a am ak fulla jim ko war a jox kon sëriñ Mamoor yaa ngi ci Touba Monde bi TV ak sunu rajo xasit an leen Touba Monde bi nekk fii ci Touba Italie kon sëriñ bi bisimilah. aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi déglu rajo bi ak télé bi seen bokk Mamour Mbacke moo leen di nuyu di leen siyaara di siyaara bu gën a kawe te di leen baalu àq ci bis bi nga xam ne bis la boo xam ne def nañ ci jooxeente ay yiw yu bari di ci baalante àq bu nuyoo bi jàllee ñu fàttali tuuti ay kàddu rek ndax euh, Sëriñ <coughs> Tuubaa bi mu jógee ne day yeesal diini defe naa ne tey jii ku ñëw ci bis bi ñëw fii si Milan da nga xam ne yeesal gi am na ndax fii dëkku tubaab la boo xam ne ci jeneen diini ji nga xam ne moo fi nekkoon maanaam fii la gën a rëy ña jiite sax fii la ñu nekk waaye jàpp naa ne tey jii nii nga xam ne bisu tabaski la di sunu sunu sunna sunu maam Ibrahima kër Serigne Touba yi nga xam ne moom lañ ko fi doon def. jàpp naa ne bari na trop kon yeesal ga am na ba tax na kon mel na ne lépp loo xam ne sëñ bi waxoon na ko rek dem nañ ba technique teg nañ ci sunu bët waaw bu loolu jàllee nag ñu sant sëñ Moustapha mi nga xam ne moom moo doon jiite julli gi ak sëñ Ismaïla mi nga xam ne moo fi nekk di doomi sëñ Mouhamadul Moutala di sant ñëpp di leen dollee dénk rek ne <coughs> lii moom ab liggéey la boo xam ne def ngeen ko ba mu agsi fii euh, mu nekk nag loo xam ne euh, dangeen ko war a jàpp bu baax gën koo téye ndax lii du liggéey bu yomb li fi dajale nit ñi tey ñépp ñëw mu mel ne tey lañ doon yëg bu nekkee Sénégal moom la ñuy yëg tey jii ci bis bii kon loolee doonul lu yomb te lu ñu war a jàpp la ba tax na daal ñun suñuy kàddu mënu cee sori xanaa doon lay sant rek di ñaanal Cheikh Seydou Moukhtar mi nga xam ne moo fi nekk seen Tuubaa mu yàgg fi te wér te eh, ñi nga xam ne liggéey liggéey bii liggéey bu rëy bii ba am ci ndam lii ñu ngi ñaan Serigne Touba gën leen a dooleel ba seenub liggéey gën a fees barke Cheikh Khadim jërëjëf aouzu billah bismillah ine walillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki talibe yi yéen ñi ni seetaan ci seen télévision Touba Monde bi lëkkaloo ak seen rajo Xassida online Touba Monde bi nekk fii ci Touba itali ci studio Serigne Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Cheikh Mouhamadul Bachir ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara ci bis tedd bi nga xam ne moo di fukki fan ci weeru Tabaski ñu nekk fii ci kër sëriñ Talla gi nga xam ne moo nekk Touba Milano ginnaaw bi nga xamee ne julli nan li nga xam ne moo di ñaari rakkaay julleek tabaski ci njiital sëriñ mustafa Mbacke imam ci teewaayu sëriñ Ismaila Mbacke moom Cheikh Mahmadul Mortada ñi ngi fii ci kanam sëriñ Moussa jenn moom sëriñ Basiiru Dieng moom sëriñ Issa Dieng kenn ku ne xam ab taxawaayam ci lii nga xam ne moo di liggéeyub sëriñ Touba bi rawante ne fii ci Touba Milano waaye itam rawante ne fii nga xam ne moo di kër sëriñ tubaab gi ginnaaw bi nu jullee ba noppi te sëriñ Moustapha Mbacke yëkkati ay kàddu mu di li ci wàllu xutba bi sëriñ Ismaayil itam yëkkati ay kàddu jëme ko ci mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi dinooy jébbal kàddu gi rek sëriñ Moussa kenn ku ne xam ne ab taxawaayam fii ci kër sëriñ Touba bi ab taxawaayam ci liggéey bi ngir mel na ni lépp ci liggéey bi tey ci loxoom la nekk ànd ko ak sëriñ Dame Gueye sëriñ Moussa yan kàddu ngay yëkkati ngir jëme ko ci kër sëriñ Touba gi ak fi liggéey bi toll ak li ci aju itam lépp ci wàllu leeral yoo xam ne taalibe yi war nañ koo xam ndax yaa ngi ci Touba Monde bi TV ak sunu rajo xasida online Touba Monde bi kon Serigne Moussa bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziare bu baax a baax. te di leen balwaq te di leen balwaq te ñaan sama borom yàlla boolu nu jéggal ñu ñëpp. ci ay ñaan Cheikh Sidi Mokhtar yàlla sama borom yàlla defal ko fan wu gudd bu ànd ak wér gu lépp li mu nal sama borom yàlla yeggale ko ba mu nal leneen lu raw li nal cànd koog mboolem ay rakam ak taalibe yeeg ñëpp jërëjëf sëñ Ibrahima ñu lay sant bu baax a baax laaj nga lu am solo ndax boo laajee lu jëm ci mbirum kër sëñ Tuubaa gi yaakaar naa ne am na tuuti loo nga xamee ne si euh, mën naa ko cee leeral ci li fi jot a jàll ndax fii bi fi sëñ Mourtala ñëwee maanaam daayira kër sëñ Touba fii ci Italie mën naa ne ci Italie fii la sosoo ci Milan fii mooy fi la sosoo ci Milan ndax at mi nga xamee ni si lan fi sos dayre bi ñu amoon benn kër gu yaatoo yaatu ñi nga xamee ni si ñoo ko sosoon bokkoon ci waa kër alaaji Yande Diop bu sëñ alaaji fekk ñuy yëkkati xasaayit njàngum xasaayit loolu ñu naan kuréel fii ci Milan gi fi la sosoo ci Italie mën naa ni sax ci Europe fii ci Milan la sosoo alaaji Yande Diop bi mu ñëwee gis njàng mi neex lool fa tabaarakallaa mu xamal ni maanaam dafa bëggoon lii bu sëñ Mourtala ñëwee France dana ko fi indi yaakaar naa lii may wax am na ay chéré keroog bi sëñ Mourtala ñëwee fa tabarakalaa njàng ma neex lool benn mbokkum taalibe ku ñuy wax Badu Jonn des na ko tudd ndax euh, moo ko waxoon wax ni sëñ Mourtala dañoo bëggoon kër gi nga nga ñaanal lu jënd ko sëñ Moutala ni moom de bu ngeen ko mënut a jënd sax ma jëndal leen ko ñu ni ko Mbàkke ñaanal nu rek ñu jënd ko mu ni kon nag bisimilaay da cay barkeelu làmb ca poos ba génne nëq ban ko waññee mu nekk téeméeri junni ak ñaar ci liira ba loolu moo waral ci Italie ñu naan cinq cent dix mille mooy sos wi képp ku la wax ni sas woowu maanaam génne na ko sëñ Moutala génne na ko jëkk na ko génne fenn fu ci Milan kooku day wax la ko neex mu digal nu nag kër sëñ Tuubaa gi ñu cay dox di ca dox ba tey yàlla sottal ko nii mu àggee ñuy sant ñëpp nag di gërëm ñépp te di la xamal ni li sëñ laa waxoon rek moo fi nekk dafa waxoon ni ban koy sos dafa amoon lu mu nu digaloon dafa waxoon ni nan boole ñaar ñi nan ko nan nan ànd ki nga xam ni dafa am boromam koom ak ki nga xam ni dafa am boromam njàng ndax loo koom koom koom ca moom ca ca yoroom xel ànd ak boroomum njàng boo sàggantul la ngay lijjanti du sotti loo jàng jàng jàng ci yorutum koom boo sàggantul ay jafe-jafe dafa moo tax mu ne kon na ngeen boole ñaar ñi boroom koom mi ak borom njàng mi ci loolu lan santoon ñi di ko def ba noppee mu ni bu ngeen amee kër gi na ngeen fi wut loolu ñu naan social kees goo nga xam ne da ngeen ci dimbalante bu ko defee ngeen ci jàngal seeni doom loolu mooy dox ba nëgëni ñi nga xam ne si nag ñoom lañ fi bokkal nekk fii nag wax dëgg yàlla ay jàmbaar ay jàmbaar lan bu baax a baax ndax booba ba tey noppiwunu di ci dox di ci wax ba tey jii fii ñu egg te yàgg naa ku ñëw ci jullikaay bi danga nga gis li fi xew ndax daanaka mën na ni ni ko waatuwaar yi defee noonu lañ ko defee fii ndax njabootu sëñ Tuubaa gaa ngi fii ku sës rekk ci sëñ tubaa ngi fi ndax doomi sëñ Murtala bu teewee mën na ne digganteem ak sëñ tubaa kenn rek a fa dox kon nag ñuy dolli di soññee ñu gën a góor góorgóorlu gën a jàppante gën a xam góorgóorlu ci liggéey sëñ tubaa bi ndax sëñ tubaa rek a fi ne ci ñi ma ko war a wax ñun loolu am sëñ tubaa lan ko may moo na ko may dafa fekk ni nag nit moom soo amee dara di ko tiitaroo na xam ko ko may ñun sëñ Tuubaa rek lañ gëm sëñ Tuubaa rek la dox ay taalibe rek la ñu ndax sunu maam lim am lépp sëñ Tuubaa rek la ko jëlee kon nag yoon day def ne ñun fu mën a nekk ci senegal ci àddina bi buñ fa fekkee liggéeyu sëñ Tuubaa war nañ faa taxaw comme ni ci sunu maam daan taxawoo démb ak bërki demb loolu rek moo indi ñu war a jàppante mën a góorgóorlu sëñ Ibrahima nag ñu lay sant bu baax a baax tey ñaan sama borom yàlla guddal fan bi di koy ñaanal mboolem taalibe yëpp ndax it wax dëgg yàlla sab taxawaay rafet na lool ndax man ñaare ñaare wax dëgg yàlla am na fo am naa fu ma la teg foo nga xamee ni si ndax danga may dimbali ci yu bari ndax wolof njaay dañu ko am kuddu dool ak ndax wax moom xañ na yàlla mën na wuma ko waaye fu mën a demit kàddu gi moom yow laa koy jox nga waxal ma nga tontul ma kon ñu ngi lay sant ci loolu bu baax a baax ñu ngi ñaan daal sama borom yàlla guddal fan yi ci wéeru cër yi ca Touba Monde bi sama borom yàlla yokk ko ba mu mel ni télévision yëpp ndax Touba Monde Touba moom tur bi moom rek am na lu ñu signifié ndax Touba moom fu ko waay dégg rek xam na ni Touba moom rek ndax alxuraan moom am na Touba waaye nag fi ñu toll ci addi bi moom addina bi moom boo nee Touba rek moom ñëpp dañ seen xel daay daay dem ci genn gi mu nekk nga Touba kon Touba Monde bi mooy Touba guy wër addina bi moom. kon yaakaar naa télévision bi moom yaakaar naa am na <laughs> signification boo xam ne jàpp naa ni moom dana dana dem ba siw lool ba ba fu fu bëgg mu yegg fa rek dana fa yegg ndax it defuñu ci lenn lu may fowuñu ci réewuñu ci Sëñ Tuubaa lañ ciy wane kon jàpp naa ni loolu moom mën na noo tax mu yegg fa mu fa bëgg a yegg ñu ngi ñaan nag comme ni ma koy waxee bus mu nekk ndax saxaar bu bëggee àgg ca gaar ba day jaar ca raay ba dégg nga bu wàccee raay bi rek. àgg ca gaar ba day jafe dégg suñ bunt nag ci fi ñuy ñaanee fenn rek la mu Cheikh Issa Diène foofu la ñuy ñaanal di ko ñaanal bokki taalibe yëpp di ko ñaanal bokki jullit yëpp sama borom yàlla defal nu fan wu gudd wa ànd ak wér yaram ca teewe ko ati ati at ca ànd ko wér ak xéwal ci barkeb Cheikh Issa Diène jërë ngeen jëf sun xool seet na koy wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.